ndi fasi yeni tam eh, sunoy tank mom dirib noongi anda sonom xel tey ñaan sun borom bàyyil ni fa xel mi duñ juyoloo ñoom ci dara duñ juyoloo ñoom ci dara lépp luñ ñu digal rek loola fas nañ ko yéen a def ñaanañu yàlla itam nag mu dinu seet ci li li ñuy tere ñoom loolu ñaanañu ko yàlla moo tax na ñoo ngi sant bu baax a baax a baax a baax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 buñ ko nango ah fa alhamdu buñ ko nanguwut na nga xam ne ne la eh, la tàmbalee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ci ñam ànduloon di saabee ya, bi agsi ci Sëriñ Tuubaa nañ doon jëflante ña lankoon bañ a def lañ leen digal loola it bu boobaa